wasumaatu ak déggtalu wala xasadu ak kañaan wal buxdu ak mañeel waroyatul fadli ak xol bëtam ngëneel alal xayri alal xayri si keneen wal hamzu ak piis wal lamzu ak regeju wal abasu ak fox wa suxriyatu ak reetaan wa zina ak njaalow wa nazaru ak xool ilal ajnabiyati jëm si càmbur bu jigéen wa talazuzu ak bànneexu bi kalaami haasi waxu ndaw si waakulu am waali naasi ak lekk alalu nit ñi bi xayri tiibi nafsin si lu dul teew bakkan wala aklu ak lekk bi shafaati srambu aw bi diini wala ngay mu wala ngay muboo diine ji na fen dafa xaraam si mukallaf bi bu dee moo ko def moo ko def te tey ko wax mooy nga wax nga wax si nit ki dara loo xamante ni amut nga fenal ko bu dee yaa tey nga fenal ko kon boobaa dafa xaraam am nga si bàkkaar amaa nag bu dee teyoo ko nag li nga def fen la gaa waaye doo si am bàkkaar wal xiibatu ak jëw ak noonu tamit jëw baaxut mooy nga wax si ginnaaw nit ki dara même bu dee li nga wax si ginnaawam sax dëgg la euh, même li nga wax si ginnaawam dëgg la sax euh, ba léegi jëw la te neexu ko ba léegi jëw la euh, jëw nag am na juróom-ñaari façon yoo xamante ni dagan na mooy tazallam wastaiz wastafti waxazir wa arif bidaatan fisqan jaahilin nee na tasallam jàmbatal tooñ maanaam dañ laa tooñ léegi nga dem kalaame ko ak keneen même bu dee sax loolu neexu ko loolu dara neexu si wastain xettalikul waa ji moo la mun moo la ëpp doole di la dóor léegi yow gis nga keneen ku ko ëpp doole léegi nga dem wastaxis mooy xettalikul waa ji moom moo la moom moo la ëpp doole léegi mu mu lay dóor yow gis nga keneen ku ëpp doole léegi nga dem wax ko kooku pour mu fajal la ko euh, loolu tamit dara nekku ci même bu dee sax neexut waa ji wastafti dafal fatwa maanaam yaa ngi bëgg a liggéey nit ki dara wala nga bëgg a séq ak moom dara léegi nga dem fatwa laaj keneen ki na la mel euh, même bu dee loolu neexu ko sax dara nekk ci naka noonu tamit Euh, was waxazir moytu nugul maanaam gis nga sa xarit muy ànd ak kii gis ni kii àndandoor bu bon la mooy ànd moom bu ko moom da koy lor léegi nga ne ko moytul nga moytu kooku kon ba tamit dara ne si bu dee neexul waa xamle na xamle googu nag mooy comme gis nga nit kii moo ngi euh, moo ngi def dara wala mu bëgg a lor kenn wala mu bugg a def loo xam ne dafa ñaaw léegi nga daal di dem wax ko ko nga xamle ko ah loolu dara nekk ci loo mooy waan ref même bu dee neexu ko bidaatan mooy bidaa maanaam nit ki mu ngi waar nit ñi di wax si bidaa loo xamante ni uuteeg naag li yonent almam salaa sallam doon def mu koy mu koy waxee ah, di def bidaa loolu nga xamle ko nit ñi loolu dara nekk si fisqal mujaahirin mooy kàccoor koo xamante ni dafay biral ab kàccooram kon baa loolu tamit nga biral ko dara nekk si am koo xamante ni kàccoor la day naan sàngara day njaalo waaye loolu yëpp moom nëbbu ko nga daal di dem ngay waxe ko loolu loolu dara nekk si wan namimatu ak rambaaj naka noonu tamit rambaaj dafa xaram nga fekk ñaari nit di ànd léegi nga fexe ba yàq seen diggante loolu mooy rambaaj dafa xaraam ndax yonent Yàlla sallallaahu alayhi wa sallam nee na laa yadxulul jannata namaamun rambaajkat du dugg aljana mukk kon boobaa ki nga xamante ni dafay rambaaj kooku du dugg aljana kon rambaaj dafa xaraam mu ko la bu def na jàpp da si am bakkaar wal kibru ak rëy naka tamit rëy dafa xaraam la mooy rëy rëy moom mooy bañ dëgg ak xeeb doomu aadama yi euh, te yim taal saa dafa wax mu ne laa yadxulul jannata man nit du dugg aljana bu dee xolom ab pepp si réy sax daf see am ba ma waxee loolu ba pare benn waay jóg ne ko waa ji de moom dafa bëgg yére mi di nekk yére yu rafet dàll mii di nekk dàll yu rafet yonent Yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ne ko loolu du rëy ne ko inna allaha jamilun yàlla dafa rafet te tamit dafa bëgg lu rafet mu ne ko alkibru batrul xaqi wa xamtu naas rëy moom mooy euh, moom mooy bañ dëgg ak xeeb doomu aadama kon dafa xaraam wala oj bu ak xaaw te mooy yéem jëf yaa ngi def dara ba pare di ko di yaa ngi julli wala nga guddi gi yëpp nga nga nga naafila ko ah, te loolu yëpp defoo ko defoo ngir yàlla yaa ngi xëy nga xëy suba rek toog naan dama gémmantu ñu naan la xanaa nelawoo guddi nga commencé di fudd naan amoon ah, kay dem si guddi kay damaa yennoo la di ko wax nit ñi ah, te boo si sax yow loolu defoo si dara ndax li nga ndox mi nga jàppoo yàlla la ko may kàttan gi lépp loo def rek yàlla yàlla la ko may kon jarul nga ci yéem dafa xaram war yaawu ak ngistalu yaa ngi jaamu yàlla ba pare bëgg nit ñi bëgg nit ñi gis la bëgg nit ñi gis la wa sumaatu ak déggatu yaa ngi jaamu yàlla wala ngay julli léegi ngay wax si kaw bëgg nit ñi dégg la même bu doon sax yow danga koy def waaye nit ñi bu ñëwee yow si ngay gën a yëgati kàddu daal di koy gën a rafetal ni ngay jànge loolu loolu dafa xaraam wal xasadu ak kañaan naka noonu tamit xañaan baaxut xañaan nag am na ñetti façon maanaam yow nga xañaanee nit ki mu ñàkk ko yow nga ñàkk ko boobu moo gën a bon naka noonu tamit ñaareel moom mooy nga añaanee nit ki mu ñàkk ko euh, mu ñàkk ko yow nga am ko kon boobaa boobu tamit dara nekk si ñetteel bi moom mooy nga mooy nga añaane nit ki moom pour mu euh, am ko yow nga am ko bu moo gën a baax loolu dara nekk si maanaam nag bu dee danga kaa añaane moom pour mu ñàkk nga ñàkk ko boobu mooy bi euh, ko mu ñàkk nga am ko boobu tamit euh, boobu tamit boobu tamit baaxut añaanee ko moom mu ñàkk nga am ko gënut daal nanga noonu tamit waaye nga añaanee ko moom mu am ko nga am ko loolu dara nekk si ndax laa yuminu li ahadin xata yuxiba li aqihi maa yuxibu li nafsihi ni eh, eh, kenn du gëm si yéen lu may dafa bëggal boppam li nga xaman eh, li nga xaman li mu bëggal boppam loolu la bëggal mbokk jullitam mu ne wal buxdu ak mañeel nga xool nit ki rek bañ ko loolu baaxut xool nit ki xool doomu aadama rek bañ ko loolu baaxut dafa xaraam war a yottul fadli ak xool bëtëb ngeneel alal xayri si keneen waaye xool bëtëb ngeneel di xool keneen yow xoolee yow yaa gën wala yooyu amaana sax moom moom moo la gën wala bu dee chrétien la nga xool nga nga ne li mu nekk chrétien man julli laalu moo tax man maa ko gën te xamoo la mooy mujj gi mujj gi moom moo am solo yow xamoo la mooy mujjam mën naa am mujj gi mu daal di tuub ah yow sax nga nga dugg nga dugg si kéefeer Euh, kon xamuñ kan mooy gën kon bul gis nit ki rek euh, nga euh, nga koy xoolee bëtam nga ne nga jàpp ni yaa gën wal hamzu ak piis wal lamzu ak regeju piis moom mooy ngay jëw si làmmiñ ñoom ñaar ñi toog mu toog ak waa ji même bu dee sax dafa teew foofu mu teew foofu léegi nag ñi bañ ñi bañ li ñuy wax moom mu dégg ko léegi ñu daal di koy waxante si gémmin waaye ñu koy piis loo xamante ni waaj du ko dégg wala ñi koy regeju comme mu toog léegi ñu koy pis si bët di xoolante si bët di waxtaanante si bët di jëwaale waa ji loolu tamit dafa xaraam ama sax waxee ba reetaan moom mu reetaan te xamul sax xamul sax la ngeen wax fekk yéen a ngi koy jëw loolu kon dafa xaraam wala abasu ak fo fo am na yu dul ñett yi yonent Yàlla Muhammad sallallahu nee na neen la neen googu am na ñu ne dafa xaraam ah, am na ne dañ kaa sib loolu la si namm foo googu foo googu ñett yi mu wax moom mooy muy foo si mooy foo jabaram wala muy foo si fitt wala muy foo si fas buy foo si fas wala muy foo si fitt sax day tax bu demee euh, xare du sonn naka noonu tamit bu dee tamit ay foola yoo xamante ni amul benn njëriñ comme nekk di tëb yooyu yooyu nga xamante ni amul benn njëriñ yooyu dara nekk si amaa bu dee nag da ngay foo comme ngay fecc nga eh, ngay ngay woy kon ngay déglu ay ay musique kon yooyu dafa xaraam bu dee da ngay fecc ay fecc yooyu dañ koy dañ kaa sib bu dee nag comme foo yoo xamante ni dafa am njëriñ si yow comme comme yooyu kon boobaa loolu dañ koy sopp maa nag bu dee nag yow boo ko defut boo ko defut mën nga sax feebar baa daf lay mujjee war sax wa suxriyatu ak reetaan reetaan nit yow mën nga gis nit ki di dox fee mu mu tarxiis au lieu que nga dem jàppale ko de nga taxaw di ko reetaan loolu loolu baaxut dafa xaram wala nit ki ñëw am soxla si yow di la ko laaj léegi nga daal di koy euh, euh, nga daal nga daal di koy wax waxe noo xamante ni yow mën nga kaa jàppale waaye euh, ba pare da ko ne ko ne ko ne ko demal awma li nga yor kon ba loolu dafa xaram ndax loolu danga nga koy reetaan wa ak njaaloo na ko noonu tamit njaaloo dafa xaraam njaaloo moom mooy nga seeg keneen ku dul sa jabar bu dee da see keneen ku dul sa jabar te amagoo ah, ama amagoo jabar kon ba kooku dañ koy dóor dañ koy dóor ah, téeméeri yar moo xam jigéen moo xam jigéen la wala góor amaa nag bu dee moom dañ koy dóor genn wàll gi te mooy cinquante yar tamit bu dee nag dafa bu dee nag dafa am jabar bu dee dafa am jabar nag wala jigéen gi am jëkkër ba pare daal daal di dem ñaalaw kon ba kooku dañ jam dañ koy jam bam dee wan nazaru ak xool ilal ajnabiyati jëm si jàmbur bu jigéen ay ngay xool koo xamante ni jàmbur bu jigéen du si jabar du sa dara may nañ ko bu dee koo xamante ni day labat mu xool noonu kese waaye keneen bu dee dafa xool benn yoon kon baa euh, du nekk foofu di ko xoolaat na ko noonu tamit wa talazuz ak bànneexu bi kalaamea si waxam jigéen ji bi waxtaan ak keneen waaye muy wax keneen ngay bànneexu si wax jigéen googu loolu baaxul dafa xaram waakulu am waali naas yi ak bi xayri ci bi nafsin si lu teewu bakkan ngay lekk alal nit ki si lu teew bakkan maanaam nga koy lekk maanaam comme nga wax ko dara te bu xamoon ni mu demee moom du la ko jox moom moom du la ko jox kon baa mooy lekk alal nit ñi si lu teew bakkan dafa xaram baaxut wala aklu ak lekk bi shafaati ci ràmm ngay lekk si ràmm mooy nga lekk maam comme loo xamante ni yow mënoo nga kaa defal noonu te doo si am benn problème léegi nag nga si laaj intérêt comme joxe nañ euh, joxe euh, joxe nañ ay passeport pour ñi nga xamante ni ñoo bëgg a génn dem jàngi léegi ñoom lañ nga may yow nga ëlbatiku di leen nga jaay loolu dafa xaraam baaxut aw bi diini wala ngay mbubboo diine gi dem gis benn kër ñu koy tabax rek nga ñëw foto ko jël ay foto ay xale yu bëri daal di koy envoyé commencé naan nañ ma jàppale nañ ma jàppale ah, ñi koy jox xaalis lépp bu nga joxee mu dugal gis këram lekk ko kon baa loolu dafa xaraam wa taqiru yi ak yéexe julli an awqaatiha si waxtu wa nga yéexi julli ba waxtu wa passé loolu dafa xaraam kalaf bi buñ noddee rek war naa dem si jàkka ji préparé bu mu fa bàyyi di dem ci leneen lu may nag mu am ngànt ama bu amee gànt nag dara nekk ci waaye mu yéexee waxtu bi nag ba waxtu bi passé te amul benn ngànt am na ñoo xamante ni ñoom dañ du julli sax ñoom buñ dañuy nelaw ba 9h nelaw ba 9h yeewu ndekki dem wala taxawaalu ji loolu la noonu rek lañ fi nekkee duñu julli sax mu ne walaay xel du dagan lawu ñeel mukallaf bi soxbatu fasiqin mu ànd ak kàccoor wala mu jaale sutuhu du caageen mu toggaale ak moom daganu si mukallaf bi muy ànd ak koo xamante ni kàccoor la li may nag xam na ni moom bu àndeek moom mën na kaa jubanti mën na kaa waar bu ko waaree mu xubb ko mën naa delluwaat si yàlla kon baa moom ah, mën naa ànd ak moom mu waar ko si loolu mu dellu si yàlla amaa nag bu dee nag kii moom maam maanaam bu dee nag kooku kooku kooku bi dafa ñuul kooku xamante ni bu àndeek moom waa ji moom moo koy yàq waaye moom munu defa munu kaa defarati kon baa kooku la ñu wax daga noonu ñu ànd ak moom daga noonu tamit du toogaale ak moom lu may ngànt bu dee euh, comme comme ñu dugg oto loo xamante ni mënta nekk mënta ñàkk nga taal di toogaale ak ak moom kon ba loolu dara nekk si amaa nga ñëw rek fekk mu toog nga daal di toogaale ak moom kon ba loolu loolu loolu baaxut dafa xaram walaa yatlubu walaa yatlubu du sàkku rida al maxluqina yërmandeg aji bind ji bi suxtil xaaliqi si mooy si mooy aji bind ji nee na mukallaf bi wata ne walaa yutlubu du sàkku ridaa al bind bi suxtil bi wata sàkku ngërmandeeg keneen ba pare di merloo ki ki ki xamante ni moom mooy boroomam manaam heure julli jot na léegi nga kon ne di nekk si liggéeyu diw rekk bàyyi bàyyi bàyyi dem julli ji bàyyi bàyyi liggéeyal yàlla loolu loolu loolu dafa xaram am na ñoo xamante ni ñoom ñoom moom ñoom moom heure julli bu jotee bu leen fekkee même bu dee si yoo xamante ni dafa ñàkk solo sax ñoom loolu dañ koy def ba pare door a dem door a dem julli ji même bu dee dafa ñàkk solo même bu dee sax da ngay liggéeyal si sëriñ bu heure julli jotee nga fa war a bàyyi nga daal di dem nga daal di dem julli ji lu may mu fekk la ngay jàng wala yu mel noonu bu dee dara fekk ngay jàng loo xamante ni ngànt la kon booba yow mën ngaa dem mën ngaa mën ngaa dem mën ngaa mën ngaa dem nga continuer si loolu ba pare nga door a dem julli mu ne qaala wax na allaahu yàlla subhaanahu tunnam ak sellam mu ne wallaahu yàlla wa rasuluhu ak yonentam a xaqu ñoo gën a yeeyoo a yurduhu ñu gërëm la lañ kaanu nam nekk nañ muminin ni di way gëm nee na yàlla ak yonentam ñoom ñoo gën a yeeyoo seen ngërmande bu bu dee nekk nañ di gëm mu ne waqaala wax naa ali yàlla nekk si moom assalaamu xéwal mu ne laa taata dayta topp li maxluuqi li maxluuqi ñeel bind fi maxsiyati ñeel euh, këñ bind fi maxsiyatil xaaliqi si mooy aji bind ji nee na warta topp keneen euh, warta topp keneen Euh, ba di ba di mooy ba mooy ki xamante ni moo ko bind te mooy boromam mu ne walaa yaxilu du dagan law du ko ñeel ay yafaala jëf fialan jëf joo xam ne xataa yaalama bata mu xam xukmallaahi atey yàlla ji fii ci moom nee na mukallaf bi daganu ci moom muy jëf benn jëf boo xamante ni lu may dafa xam li nga xamante nii moom la ci yàlla ate bu commerce na xool li ci yàlla wax mu jëfee ko bëggee julli yépp war na kaa dem war na kaa dem jàng bu dee nag loolu nag moom du ko mën waaye yas'alu mu laaj al ulamaa borom xam-xam yi mu laaj borom xam-xam yi bu dee nag loolu du mën léegi mu daal di leen roy comme bu ñuy julli wala bu ñuy def dara léegi mu daal di leen si daal di leen si euh, roy kon mukallaf bi lépp loo xamante ni bëgg na si dugg rek na dem xool lislaam la la wax si loolu mu demee xool lislaam la la wax si loolu ba pare mu daal di koy door a dem mën a def bu dee nag loolu nag moom du ko mën a jàpp di dem laaj borom xam-xam yi wala mu roy leen mu ne waqtadi mu roy bil muttabiina si ñu topp li sunnati muhammad ngir sunnaa yonent yàlla muhammad ñaar sunnaa yonent yàlla muhammad sallallahu yàlla na yàlla dolli xéwal an li si moom wasalam te dolli ko musal ñooñu ñooñu allazina yi mooy gaa yi nga xamante ni yadulluuna dañuy tegtalee ala taatillahi si topp yàlla wa yuxaziruuna ñuy moytuniku min itibaa cheytaani si topp cheytaani ne gars yi mooy ñi nga xamante ni dañ lay tegtal si nga topp yàlla mi nga xamante ni moom moo la bind di la moytunikoo si nga si nga si nga topp cheytaani mu ne walaa yardaa du gërëm li nafsi ñel boppam maa li nga xamante ni radiyahu gërëmoon na ko almuflisuuna ñi feles ñi allazina mooy gars yi nga xam ne daat sànq nañu amaarum seen dund fii xeyri taatillahi si lu dul topp yàlla taala kawe na nee na bu mu gënul bu mu gëmul bu mu gërëmloo boppam loo xamante ni ñi ñuy feles ñi ñoom ñoo ko ñoom ñoom ñoom ñoo ko gërëmoon ñi ñuy feles mooy ñi nga xamante ni maanaam daanañ jaamu yàlla ñoom seen digganteeg yàlla da nga daan respecté di julli bu jotee dañu julli ah, lépp loo xamante ni daal ah, si seen digganteeg borom la da nga koy respecté waaye duñ respecté seen seen digganteeg nit ñi dañu amel àq nit ñi lu bari bu ko defee nag ñooñu bu ko rek alaaxira ñëwee yàlla dafay jël li nga xamante ni mooy seen jëf yu baax di ko fay ñi nga xamante ni ñoom la ñu yoreloon àq bu demee ba jeex nag ñu jël euh, ñu jël euh, ñu jël kii ñu jël ñi nga xamante ni ñoom la tooy ñu jël seen jëf yu bon yëpp daal di koy jox moom jël ko daal di koy dugal safara kon nit waroo xool sa diggante yàlla kese na nga xool sa diggante ak nit ñi nga bañ yoreel kenn àq loolu moo gën boo xoolee sa diggante ak yàlla te te rafetaloo sa sa sa sa diggante sa ak nit ñi yàlla jël li nga xamante ni moom nga doon rafet ak moom moom nga doon rafetal ak moom mu daal di koy fay ñi nga xamante ni rafetaloo ko ak ñoom mu ne ñooñ fa yaa xasratuhum ona seen perte wa yaa tuula bukaayihim ona seen yàgg ak jooy yowmal qiyaamati keroog bis penc nee na ñooñu koy ñuy def loolu on ak seen perte maanaam keroog yowmal xiyaama dañuy perte yàlla da leen di jël dugal leen safara on ak seen yàgg jooy dañuy jooy keroog yowmal xiyaamati keroog bis kon nit lépp lu muy def rek war na kaa xool na ko noonu tamit lu muy def tamit war na kaa def ngir yàlla ndax ah, benn waaye moom da doon da doon napp ba muy napp nag mu daal di napp benn jën bu mag fekk moom dafa ñàkkoon ay doomam amuñ lu ñu lekk léegi nag mu daal di jël jën boobu bëgg kaa jaay pour pour jox ko doomam yi ba muy dem ba ba mu jëndee ñaari palaat nag dem daal di gis ñaar ñoo xamante ni yaay ak doom ñoo xamante ni ñoo ngi jooy léegi mu daal di leen jox loolu si ngir yàlla rek yàlla commencé kaa xéewalal di nga xéewalal ba mu dem ba am xaalis chaque jour muy maye junne chaque jour muy saraxe junne waaye junne yooyu yëpp def ko ngir yàlla benn jour mu tëdd nelaw mu gént ñu dem yow ma yàlla yàlla di ko àtte yàlla di ko léegi ni yàlla di jël jëfam yi nga xam ne ñooy jëf yu baax yi nga teg ko jël jëf yu bon yi te goye ko nii léegi jëf yu bon yi daal di daal di gën a bëri léegi mu daal di tiit léegi ñi daal di jël ñi daal di jël ñaari palaat yooyu noonu daal di koy teg si balance bi mu gën a jëm ñu jël ronkoñ xale bi euh, euh, gim fer noonu ak reetaan gim leen reetaan ñu daal di koy teg foofu mu gën a bëri yi nga xamante ni defu ko woon ngir yàlla yooyu yëpp mu soppeeku ay xob oyof toll kon nit ki lépp lu muy def rek war na kaa def ngir yàlla mu ne nasalullaha ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu tuddnam ak sellam a yoofiqanaa mu dëppale ñu ittibaai sunnati nabiyina ñu topp suñ sunnaay yonentu bu ak suñu ràmm na ñoo ngi ñaan yàlla mu daal li ñu dëppali ñu topp sunnaay yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy suñu yonentu naka noonu tamit keroog yow xiyaam moom moo ñuy ràmm ndax dañuy dem si yonentu yëpp yonentu yëpp am ngante ñëw si yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daal di ñuy ràmm ak keroog bu ñu demee ba taxawee foofu nit ñi dañu yàkkamte sax yàlla atte leen dugal leen safara waaye bu ñu demee si yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi ñu sang sang mooy ki ñu gën a kawe jukkoo ku la gën a kawe si si jukko yu baax yi te ñun yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy suñu sang ndax moom moo ñu gën a kawe si jukko yu baax yi comme mooy kan Muhammadin te mooy Muhammad yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu yàlla na yàlla dul xiwal allah moom wasallama te dolli ah, lu si jub si yàlla la lu si dëng suñ suñ gàtt xam-xam la ak suñ néew gëstu in uridu illa lislaaha mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullah